feral yalla ci diine mais seen dagg bopp nit yek seen dóoraate yek seen dof dof lu gep ngeen def moy bu tawhid taxaw li leen gën déranger moy yalla kenn la doomu adama nit ngeen tek place nit ne a nit kat nit la dafa am nit am malaaka am jinn muy mag maag muy sëriñ tuubaak maligo bay baay ñasoo mën ta doon nit nit la doomu adama li lay def yalla li lay def malaaka li lay def yonent yi raw nañ saxaaba ya raw nañ ñi fi nekk ay doomu aadama kase lan ay niti kase jaamu yàlla bi ñu def ñoom la concerné mënuñoo liggéeyal yàlla bay jaamu yàlla ñoom li ñuy jaamu yàlla doyu leen aboubacar siddiq la mu doon jaamu yàlla moom doyu ko yenent bi sallallahu ci boppam yàlla daf ko ne moom muhammad sallallahu alayhi wasallam moo dàqa jaamu yàlla téeméeri junni yoon sëriñ tuubaa dàqa jaamu yàlla téeméeri yoon allaaji malik ak koo leen tudd yàlla ci yërmandeem lay dugal muhammad sallallahu alayhi wasallam àjjana mais du ak njàmbaaram kon ku fi taxaw di diggaate àjjana da ngay duul waxuma la dangay ngay kàcc ne da duul duul yu méttee métti wallahi muhammad sallallahu amul njëgu àjjana yàlla ci yërmande muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa leen wax bi gën gën Maodo gën ñëpp amul njëgu àjjana moom. sallallahu alayhi liggéeyalul yàlla lu mu ko liggéeyal lu toll mu mën ci am àjjana moom sallallahu pour liggéey boog am fayam ci yërmande yàlla. loolu bu fekkente ne yow doomu aadama xamuloo ko kaay wax la ko ci misaal. ndax yéen ñi di leen wàcceel wax ji ba mu suufee pour ngeen mën a dégg mën a comprendre yaakaar day baax lu tax ñu ne la Muhammad saa sax amul jóg àjjana lu tax ñu ne la doomu aadama amuloo jóg àjjana dama leen di laaj ci àdduna bi àdduna bi nekk Amérique dong-dong kan moo am alal nga am moom lu toll ni Amérique ci àdduna bi wax leen ma ki fi ëpp milliard ndax ay milliardam egg na ne ñu ne dëkk bii di Amérique ñu ne ah diw sàngam de moo liggéey ñaq ba am dëkk bu toll ni Amérique moom moom Amérique gi yëpp amul ci Sénégal amul ci àdduna bi wala nga jël Amérique ak Japon nga boole bu dee Amérique am na ko toll lu toll ni Amérique wala nga jël Amérique ak Chine ak Japon ñu ne kenn nit la nekk foofu yëpp moo ko moom moo moom Amérique moom Japon moom fële ndax nit am na lu mu mën a liggéey ci àdduna am kàttanam ba liggéey ko Netke boukwa niye kye, menm gudlou di bne la wou, gudde k betek, di bindi, di sinye, di yano ay garp, di dagge mat, di dagge le pou, menten le geye, le geye, le geye, le geye, ba amwil se gwa hamne, ton lon re, ne mwaman Ameri gey pou, tek ki mwaman Zapon, mwaman Sien, lolo amout. Wa, le genak, mwine la, Ameri Zapon wakon ni mwiton, mwine la agyana, kifa gwenne niye wale, kifa gwenne toutile, amne fuki adwana. kon kon nit kon doomu aadama nga doon xiyaamu layli guddeeg bëccëg di jaamu yàlla guddeeg bëccëg di allahu akbar di jóog di jóog bëccëg doo di sujoo dikk yi amuloo njëgu àjjana ndax àjjana dama ni la loo xam ni fukki àdduna àdduna ki gën a tuutile àjjana mooy ki am fukki àdduna àdduna yëpp kan moo am xéewal goo xam ne wala ban nit moo fi mës a dund ci zamaan ñu ne kii ba muy dund moo moom àdduna bi yëpp li nekk ci àdduna bi yëpp moo ko moom te àdduna bi maanaam ñun fi ñu dëkk ñun doomu aadama yi doon lu tuuti nga bàyyi ci xel li ci des it géej ga wër ak lépp mais lu toll ni àdduna la ci géej gaag géer gi yëpp benn ni dong moom fan la ko nit mënee liggéey kon moo tax kon nit loo boo dëkkoon di si jootal yàlla ci ba nga juddoo ba keroog nga faatoo noonu taxul nga am njëgu àjjana léegi nag ku gën a tuuti la àjjana mi nga am fukki léegi nga ñëw te xéewal ya fa nekk xéewal boo xalaat fii li fi nekk pakoti la ci àjjana bu àjjana moo dàq foofu te àdduna gi tamit liggéey bi ngay liggéey pour am jom liggéey ba kii dafay nekk pour benn l'instant téeméeri at boo ko fi amee màgget nga léeg nag ñu ne la xaalidiina fiha abadan loolu abadan la lu luy continuer la faw la dootul jeexati kan moo fi mën a liggéey lu dul jeex ci sa dund gu gàtt gi ba mën a am fukki àdduna ba mën a am lu tolloog fukki àdduna ki gën a néew de te moo dàq àdduna la fa nekk kon àjjana kon nekkut loo xam ni comme seen tappalekat yi seen paayi kat gàlla yi nin ko yombalee di leen dig ay àjjana ci loo xam ni naan leen ñoom moom àjjana waxuñu leen dëgg barke alxuraanu karim te fi nga ko mën a natt mën a bàyyi kon yéen tarixa yi yéen sëriñ si ay waaye wax leen jaam yi dëgg man nag li may wax nag wax dëgg yàlla bu ma kenn yóbbu benn kuréel man mii du jóob watawaasi wax ngir jëmmi yàlla azza wa jalla te yàlla naa am gërëmal yàlla di wax mbokk taalibe bi am yërmande ci yéen mooy li ma leen wax nag kat gàlle yi ay kàcc fen duul ku koy wër moom jàppal ma kër Serigne Touba kër Alaaji Maalik kër Baay Ñas kër Maam Limaamu ndax fi mu toll nii ci ay caayu yore yi yu ko takk li ay dul la sama gaay du dëgg ay fen la man la concerné nag bu ma kenn jëmale fenn demee ma baatu ñun xam ñun ñun man demee ma baatu ñun ñun muriti ñun Baay Faal ñun kii man laay demee man ñun Tijaani ñun xaar man Medoune Diop Watawasaw bi la sama tur laay demee demee man la engagé engagé wul kenn ku mu metti nga màtt sa bakkan koo xam ne danga am ay doj yooyu taw nga ñëw taw ko sama kaw tappale ak fen ak duul yii seen paa yi nekk ku ci dàqat kàcc sa morom duul yi ku ku ku fen léegi boo ñëwee ne lii ay fen la ay kàcc la bëgg a dimbali saw askan ñu naan la ay maanu xam ngeen ne lii moo dul maanu toog fii ay mag yi kii di di duul kii moom dama ko xam dama ko xam moom moo tax bàcc ndaw kii yow dégg ma naan bàcc ndaw sax eh, kii bàyyi su jóob yow doo doy is bu tarxiya ndax dama faa jaar ngeen képp mu otaas damaa jaar ci yéen ngeen képp mu otaas wax yi bon yi ngeen di dégg yëpp war na bil kaaba ci ismu tarxiya wax yi bon yi ngeen di dégg mooy li ma leen wax ne leen yàlla ngeen tegut fenn yonent bi salaa salaam ngeen tegut fenn yéen yéenay tànn lu leen neex ngeen lii diina la ngeen tànn ay nit yu leen neex ne nit yu ñoo fi gën dégg naa xalaat TV doon def live diw di wax ci ismu tarxiya ba Atoumane Diagne jeewee nit ki nag du dee na nga toog di wax yenn waxi mais boo leen di waxati man moo tax seen waxkat yi bëri mënuma ànd ak ñoom bu ngeen di waxati luy saraxe askan luy taate askan même boo leen di xeex dëgg maanaam am na foo xam ne boo leen ci amul xam-xam ngeen noppi kon mais toog di fen askan bi ba kañ di joxe ay histoire yoo xam ne du dëgg ba kañ barki alxuraan da ngeen di lor askan bi métti jom na bu ñuy wax da ngeen naan kii dafa metti moom fu chaque jour mi ngi ci xalaat TV chaque jour mi ngi ci kële chaque jour mi ngi ci boo présenté Hizbut Tarqiyyah waa xalaat TV loolu du dëgg mbokk sénégalais di loolu naa ci mës a tegi baaraam am na solo nag du question ne dama ko gën ñaa leen sax du question dama leen contre wala dara ndax ñi ngi liggéey liggéey solo yu rafet wallaahi di yeete yu am solo mais seen waxta seen wax yi chaque jour dafa am ay ndëgg sërëx yoo xam ne muy ci kër diine yii mooy li ma leen wax Sénégal bu fekkee bëgg ngeen avancé seen duul yi moom moo ngeen bàyyi duul duul duul duul day daal askan fen dafa defarul dara ci dëkk aj nit wala nit dee ngeen aj ko yàllaa ko kawel ko ba nga xam ne te li ngay wax lépp dara du ci dëgg Sénégal ku toog ba tàggal la ko ña la diw ko baax la woon kii dafa dee jaru sax kii ñaan la diw de ku baax la diw de ak a baaxoon diw ak a kii woon dee kuy dund moom lu nekk ngeen ko yàq mbokk sénégalais ragal li yàlla te xam ni di joxe seen nopp yi di xëppi seen bëti di déglu dëgg te yàlla tax te ngeen xam ne ku ci dee ba nekk sa bàmmeel yàlla nga mën a feer du Bàmba du Maodo du kenn wa rabbil kaaba dee ji bëri kun ci dem ba dugal la si jàkk yóbbu la ca jàkka ja sang la ba jullee la ba ne la curum ci suuf sëriñ bu ne dala fay fekk si wala mu ne la fa dara day duul ak ku mu mënta doon ak ku mu mënta doon sëriñ bu mu mënta doon ci senegal ak tariixa bu mu mënta bokk ak loo leen koy yàllal yàllal wallaahi ku ne daf leen fekk ci bàmmeel daf leen dimbali yow xam day dul ak serigne bu mu mënta doon ak kuko ko mënta bindit ay kàcc kese lañ leen bindal motax seen yoon yi di nga kontaan wa rabbil kaaba ñi dañoo mëna fenn ñew leen ma dikor dekor décortiquer fen yi Hizbut Tarqiyyah dama fa nekkon ndax ba pare say Sénégal ma gis seen benn nafiq bu am ci yeen man dama nekk isbu Tarqiyyah ku ciy dem douce nga nan ma ngi ziyaare ci seigne Babacar si billahi la ilaha illa huwa bis ma gis isbu tarxiya tiwaawoon isbu tarxiya ma gis wa isbu tarxiya tiwaawoon muy jàngi tiwaawoon ku dul sëriñ Touba tegu ñu ay kennel suñ Touba yi ngeen wax ni wa isbu tarxiya wax bobu ma déggoon ñu koy wax billahi wallahi man dama ka daan wax billahi wallahi pass pass bobu la yoon comme yow khiyam ma dégg ko ci seen khalif bi wax ko yow khiyam xiyaam Touba bu taxawé muhammad rasulullahi salaam taxaw ma bàyyi Serigne Touba non ma bàyyi yàlla ma bàyyi yenn saa ma peeral leen ma dem ci Serigne Touba war war rabbil kaaba ñëkk ma ko déggee ci Muntaxa Mbàkke billaahi lazi laa ilaa baat boobu isbu tarxee laa ko njëkkee dégg aatumaan jaañ xeetu wax yooyu rek la yor waxi bokkaale yi metti yooyu ñàkk a yàlla ñàkk a weg ak ak ay kii bàyyi bàyyi Cerno Jóob ak ay ñoom kii ñaf ñafa nekk ñoom ñëpp bokkaale katu yàlla yi gën a mag ñi gën a yab yàlla maa fi doon dégg ñoom ñu doon wax naan ku nu fi toog ci senegal fii di la tagg yow sëriñ si ñu lay tagg muy ku mu mënta doon ñu lay tëkkaleeg sëriñ Tuubaa ñu ngi lay xas xas alaaji Malick xas Baay Ñas xas Buukunta xas ñëpp tuutal ñëpp ak sëriñ Tuubaa rek yàllaa sëriñ bi sëñ bi yàlla la war rabbil kaaba billaahi lazi laa lii ma am ñaata ñaata moo ni nu doo doomu jaamat ngeen lekk màggal bu paasee ñu ñëw saa cotiser man damaa yàgg cotiser bay bëgg a dee doon sol ay yére ngandam maami yére takk maxtum takk kaana du ma sol daal tuubaab màggal gi bu jeexee commencé waat di di di cotiser cotiser ñu lay cotiser loo saa waay xaalis moo nit addiya gudul jeex léegi boo ñëwee nga cotiser pour beneen màggal yenn ci moo ni gars yi sàcc ko cop ak seeni bay laati ngandeg seen yére yi ngand jàngalul nit ñi lu dul sàcc barke alxuraanu karim ndax da lay sas ci ay addiya yoo xamante ni si borom bàyyilaati ngand yi mooy tam ñoo dàqa sàcc dàqa trian dama ci nekkoon ànd ak ci trian kat nekk ak ñoom xam li ma xam lu baax a baax li may wax waa isbitar ki wa rabbil kaaba pàkk laa mbaay boo demee kolobaan boo demee ña nga fa ñeneen ña nga fa wa rabbil kaaba sol ngandami bàyyilaat lu wéer laa leen wax billahi lazi laa ilaa jaaraloon ma fen yàlla moo tax may wax waxuma pour ay saboté kii li may wax ni sëñ Tuubaa fekkewut xamul Hizbut Tarqiyyah xamul seen yi seen affaire yi ay tappale ay uti kaay xaalis ay war na bil kaaba lijjanti moo nin seen jumaa yi nga xam ne du pare mukk jékki-jékki kii jumaa ji jékki-jékki indil la ay laax laaxu soow yoo xamante ne si subhanallah naan la laax bi sëñ Saaliw moo ko joxe wala kii moo ko joxee gën barke bi ay njabar la yoo xam ne boo ko xasee ba de ci pax ba lekk laax ba billahi lu la lañ nga joxe ko to do ko tay motax seen yoon yi bu dee bëgg seigne touba bi ngeen wax deug la ci yeen respecté seigne touba nit ñi business bi ni def ci kaw seigne touba ak yalla gi ni ak seigne touba ak fen wu ni fen ci seigne touba diko exploiter nit ñi arrête doyna na mu ca Maodo malam fépp la laa man touba la xam ndax fa la nekkon man surtout ben doomu luma wax doomu aladji malik toñe wax dëgg fa yàlla danaa leen coof nag ndax kenn bayloo ma ci tool kenn bayloo ma ci tool ndax man damaa bokkoon ci billaay wallaay damaa bokkoon ci ñu gëm ba ma nekkee murit ku yaakaaru suñ tubaa dooma wat ndel duma la tuddee doom billaay wallaay pas-pas bi laa yoroon ay sept moom damaa def ak ñoom neen Babacar si nag kooku nag moom su ma gisoon photo moom ni ma ko bañee woon sax du ndànk barki alxuraan dañ dañ dañuy sol ci yow ñu bañante moo tax boo toogee tarixe yi génni toog naan benn ngeen ay duuli kase du dëgg dun benn fenn ku ko wax waxoo dëgg li gën a bon mooy nax sa bopp mag yuy taxaw di saw di jaaxaan seen kaw seen seen kaw rek lay xasaw wax leen dëgg yàlla gi même ngeen sincérité nit ki boo toogee nga aj bamba foog teg ko foo xam ku la ko wax sincérité nga dëggu ci nga ne eh man gëw ma Maodo man bamba laa gëm bamba moo fi gën a kawe mais gëmoo ki léegi bu dëgg ñëwee muy tax tawxiid muy kennal yàlla borom sant muy yàlla kenn la yàlla du nit yàlla nekkul nit fi ngeen ko teg ay nit yu am nopp am baay am ndijaay am tànt ku ci nekk xëcc sa gaale naan yàlla li tax ngeen benn yi pour ànd nax ñu pour ànd escro askan wi foowee leen moo tax après ngeen naan ay benn la sëñ Tuubaa ak Maodo du benn dëgg ay fenn kase fii xanaa tey xanaa tey barki démb yéen a ngi doon toog fii am nañu ko doon way ay jamila jamila mambamba amul morom sëñ Tuubaa amul morom ku koy utal morom loo jur mu dee loo yaakaar mu tas kër goo dëkk mu lakk ma lan ak lan ak lan xanaa tey ñoo tax is bu tarxee mu leen gisee ca Tiwaawoon ma ne subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sam waajoo xam ne moom man damaa sedd après ma nekkoon daara ma sedd sama waajoo xam nekkaat ca daara ja wa rabbil kaaba ma ne ko sama waay yéen damaa gis Hizbut Tarqiyyah Tivaouane ma ne ko lii de moom jaaxal na ma mu ne ma yee gaa yi àll gi nekkoon nekkatuñ ci de ay tappale la ay dóor la gëmuñu leen barki alquraanu karim dañ waxante dëgg wax dëgg yàlla gi wax li fi nekk jël leen ay AGN ngeen jël ay Hizbut Tarqiyyah seen kii yu yàggee ngeen déglu leen waxi bokkaale yàlla yu biir a biir a biir peeral yàlla moom foofu naa ko njëkk a déggee te man nii di wax ak yéen dama ko doon demee dama ko gëmoon wallahi summa wallahi léegi lu leen nax yéen Sénégal mooy comme sa maanaam nit du joxe loxo jigéen subhanallah loolu bokkaale yàlla moo gën a bon loolu ba tey nit ki taw tawxiid laa ilaha illallah mooy li ngay def yàlla tax joxewoo jigéen joxewoo loxo jigéen ngir yàlla azza wa mais paa ngir sëriñ Tuuba paa ngir leneen mais ñoom sëriñ Tuuba dañuy jaam li may wax nag man li ma dund ma nag ba nekk ci nag ba kii nag laay laay wax nag lu ma xam samay carte de membre ñoom ñëpp xoole xoolee danañ ma fi gis danañ ma fa gis affaire sàcc kii sàcc na lii kii sàcc na loolu tax ñoom ñu tasoon ñi nekk awdu ga ñu nekk feneen ak feneen bu ñu fontoon nit ñi te wax nit ñi dëgg seen kasaate yi seen fen yi ngeen ba ko li ngeen di wax ay àjjana jii kii di wax ngi xam ngeen ne du benn dëgg te yii da ngeen ko war a leeral askan ne du dëgg ay boys kii doo seetaan journal ay ki waxi dof yoo xam ni ci sa waay tënk xel nit ñaan ay bu seetaan journal boo seetaan télé seetaan télé lu ci nekk ëppal ay booy saw da ngay toog loolu baax na ay doo takk montar ma nekkoon ci doo nuyu jigéen foo toll ndel ngay def dem Touba naaj ba tàng jër nga naan ci màggal dëkk sëñ bi ci ngay ci ngay def tànku neen te Touba takk sa der takk sa laxasaay joxe adi juma ji saa su nek joxe oti jox ana addiye ana kii ñaata milliards ngeen encaissé ci doobu aadama yi léegi ci li moma ma tax a dama ci nekkon motax xit ci ñama ma ñomi dañ ci bok ndax dañ ma nax waaw te li dama ko gëmon dem nak li tax ma teg lii waxi ki ni baye Youssou job bi sama dom baye bi manam li tax ma tek ko manam te li ci gëna neex nak <laughs> allah akbar da ngeen am problème billaahi wallaahi sama waa ji li ngay wax nii sa bopp ngay nax yow lii mooy waxi waxi tappale xoolal ci yow rusuloo taxaw fi man murit laa waaye li nga wax amut ay Bamba Maodo ñun tàq neel yow baatu ñun ngeen war a bàyyi neel yow sama waa ji sama waa ji affaire paa yi lii yàggut wallaahi summa wallaahi ba ci ñaari weer yi léegi murit nga lan moo tax léegi tijaan bi bu koor gaa ngi ñëw lu tax tijaan bi bu ñëwee woote woote koor doo ko gëm lu indi ñaari koor ah lu indi ñaari korite ma ni la jant baa ngi nii xam nga démb maa ngi wax benn waaye ci benn groupe ci ay dof-dof li gën nekk waa ji mi ngi ñëw tàmbale naan naan nga gis jant bi ba mu leer mu ne fàng nga xam ne lii jant la ba pare nga naan lii du jant te li muy wax loolu mooy comme ça waxi dof yi la ci teg di après man damaa xamul yan façon doomu aadama gën sama waay ban Sénégal ngay wax ñaata mbir nga dégg ci affaire ay murit ak tijaan ak ak ak murit yi li ñu yàq tijaan yeeg leen ak leen donc dañuy benn bu doon benn ngeen ñu ngeen gëm ni Maodo wax doo dem ci Maodo jàpp ngeen Maodo ni Maodo du tus jël Bàmba ko ci kaw Maodo xaaral ma may la bii soo ko sama wax ji yow sama waa ji da ngeen ñu dof dof li seen ngeen moo tax seen yoon yi ak taalibe ku leen topp ci ak naafeq ak duul war rabbil kaaba doo dem ndax da ngay dañuy jaaxaan di saw nag sa bopp bàyyi leen fen bàyyi leen fen góob dëggu leen ngir jëmm yàlla gi looy wax nii yow kii ay fii ay histoire mbay si lan moo ko fendi duñ waxante dëgg te yàlla tax mbay si suul leen tuyaawoon lan moo ko fendi ñu ne mbay si xawma kan moo ne mbay si wàlliwu la ba bam ne mbay si wàll wàlliwu la léegi après gars yi na ko suul leen kii wal après ñu ne suul leen histoire bëy bi am koo xam ne yor bëyam di dóor bëy bi naan tuunu mbay si sa waay bu buñ ma wax loo de sa waay bàyyi leen seen seen duul yi ngeen bàyyi seen fen te waa ne dëgg te yàlla tax danoo toll ci jamonoy dëgg ñun dëgg la ñuy leeral pour dëgg gi feeñ man waxee ma pour côté tijaan waxee ma côté murit waxee ma côté ibaad waxee ma côté xaar wax ji ku metti nga mat sa bakkan barke alquran dëgg la ñuy wax wax jii ku mu metti bu dee da nga bëgg a nax sa bopp nga nax sa bopp yow ngay fen bàyyi leen fen nga naan ma murit ak tijaani xom man murit laa waaye yow kan kan nga yab ban Sénégal ngay wax balaa maa dee ngeen naan jant baa ngi ne gisuma ko doo leen duul da ngeen nawloo alaaji Maalik doo leen bàyyi fen da ngeen nawloo tijaan sept ngeen wax tijaan yi nga naan man la man ba ma nekkee isbu tarxeelaa dama doon wax naan ku yaakaaru Sëriñ Tuubaa dooma wat doom billaahi wallaahi li laa gëm du ma la tuddeen doom du dooma wat ndel man sam papa tijaan la man dama doon wax naan sam dama koo yërëm lu tax mu dee te jéggool ci Sëriñ Tuubaa duul yi lan ma jàngaloon te sam papa xam Sëriñ Tuubaa ak ñàkk xam Sëriñ Tuubaa tus la ko wàññiwul Sëriñ Tuubaa ñaari dërëm la mënul sam sama baay ci li mu dee sax dama ci kontaan ndax jébbalu ci si benn sëñ Touba jébbalu dem ci kenn naan aslamtu nafsi la ma nekkoon mooy ak réer lii ngeen ñu jàngal bàyyi leen duul bàyyi leen fen bàyyi dëggu leen bu nee guy nga génn daqaar ga sax mën ngeen am dëgg nax seen bopp yéen ab nit ku dëggu wallahi nu continuer ci seen yoon yi moo tax ma xaaj kan ngeen yàpp di ngeen jox cër kenn man mii dama doon raay sama papa man ku yaakaar billahi wallahi ba ma nekkee daal surtout Hizbut Tarqiyyah ñoo ñu gën a raciste ba ma fa nekkee damaa ko yaakaar suñ Tuubaa moom man du ma la bugguma barki alquran pas-pas bii lan yor wallahi suma wallahi ku dul suñ Tuubaa doo tus doo dara. àjjana suñ Tuubaa fàggul nañu ko te nit ñi suñu àjjana leer nañu tafaatoo guñ ndax. koo xamante ne ki nga yaakaar dafa wax ne li xayrin taxaa bir mun taxaa kullu si saxaa wayen xoo bi ñu bu amee nattable ci sa àjjana bis pénc xamoo koo xam ne ki nga yaakaar wax na ne kullu muridin bi yàlla yasadu wa innahu min azabu baadu ngay wëlbati ko di bul ma jéem a ma duggloo is bu tarxiya te nag damaa kii nag si wàcc wàcc seen kii yu baree bari nag ma dooli la ko ci ndax gars yi xam naa ne fot fot boo commencé wax nii rek dañuy tiit xeebuñu kenn xam nga ni classe mbirum job ji ñi ngi leral dëgg gi ñi ngi leral seen fen motax lepp bepp audio seen tok tok ci seen vidéo yëpp yu baree bare ñi ngi ñu bay sama waji waxe raciste dëgg dëgg la la wallahi wa rabbil kaaba wax ji ngeen di dégg man mu leen yéem señ bi naan yalla taxaw ni yonent taxaw ni mu père yalla père lolu pass pass bu ñu gëm la ko leen yapp sama waji partager leen mu yaatu partager sot la bok ngeen am ci tiyaba nit ñi gëndu li may wax ni seen njariñ la léegi kii léegi li may njëkk wax ci waxam ba mu koy wax day dem ji ci kanamu sëriñ di yóbbu addiyeem mu doon koo xam ne ku am ndombal tànk ay nit di ko déglu comme saaru sëriñ la ñoom Youssou Diop ñi yëpp ñoom Baye Youssou Diop ñoom Baye Massamba Aatu Jaañ ñu naan ko Baye Jaañ ñooñu ñëpp ay comme ay sëriñ wallaahi moo tax Aatu Jaañ lan moo tax mook Cheikh Béthio ñu demoon ba koy kii affaire mooy saaru sëriñ la Baye Jaañ Baye Jaañ lañ koy papa Aatu Jaañ mu doon sëriñ man mi sam bop comme serigne laa defone man mi di wax ak yeen wallahi suma wallahi mais da ngay dégg yo am seen wax yo xamni muy ñom yusuf job ak ñom ñep sa waxam ji Youssou Diop di wax ni xam ngeen ni waxuma serigne Touba waxu dëgg de waxuma yoonu mu waxo len dëgg de mais yusuf job mi lu wax ni ay fenn la du dëgg xaw ma bàyyi Youssou Diop jaru sax bay lim wax ni lan mo ci dëgg ay serigne meuna tok meuna setan li diko lii nañ waxante dëgg li la len wax ci comme aljana gi nga xamni mom ngeen di digi lo xamni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuko Aboubacar Siddiq amu ko ngeen bëgg ko jox seen mag ñi ndax lii mooy fonk sëñ Touba lii ay duul sama gars yi lii du fonk sëñ Touba. àjjana sëñ Touba fàggul nañu ko te ñun ñëpp suñu àjjana leer nañu tafaatooguñ ko. àjjana sëñ Touba fàggul nañu ko ñun ñëpp suñu àjjana leer na tafaatooguñ kii loolu laa leen wax àjjana Muhammad salaa salaam ci boppam yërmande yàlla moo ko may àjjana waaye du ak jaamu yàlla sëñ Touba dafa mën a jaamu yàlla ba jaamu yàlla loo xam ne lu ma am àjjana bay maye keneen moom la mu yor doyu ko moom la mu yor pour boppam la ku fi toog naan leen ci tuyaabaam lay jël ci jaamu yàllaam dugal leen ci àjjana day waxu leen dëgg da leen di fen dama ni de nu nu Mamadou Salassa amul Mamadou Salassa amul tuyaaba yoo xam ne mu bari bay ñëw di yóbbaale kenn àjjana ci ay tuyaabaam moom sallallahu alayhi wa sallam ba am fa ay kër am fa pàkk yoo xam dañ koy may mu naan ay àjjanay bani Israël ñëw leen ngeen déglu lii baax léegi dellu leen ci ndijaayu yent bi sallallahu alayhi mu bëggal àjjana alxuraan wax leen leeral leen di leen Muhammad sallallahu alayhi wasallam de moom de toogoon na di jéggalul yàlla pour pour bàyyi taxam pour mu dem àjjana yàlla dañu ko jox misaal di wan ni àjjana sallallahu alayhi wasallam moom ko kon bu keneen ñëwee mu tudd Sëñ Tuubaa wala mu tudd Alaaj Maalik wala mu tudd benn Yuusu Jóob bu toog di leen wax ne xii la leen ay kesaw kesaw wala ay fen la yàlla ci boppam moo ko wax pour dimbali leen yéen jaami ngeen bàyyi téere yàlla bi weddi yàlla weddi Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ay fenkat nañ waxante dëgg sama gaay lu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amut ca bàyyi taxam ñaata yoon laa ñu ko jox ndax lan seen ki yi mo répété wu seen fen yi moo yàgg mu bari naan àjjana comme kii di salaasam amu kii li muy dig nii naan sëñ Tuubaa am na ko dama ni leen Muhammad salaasam amu ko Aboubacar amu ko osman amu ko Moussa alayhi salaam amu ko Aïssa amu ko Ibrahim amu ko Ibrahim bayam ma nga safar te dafa bëggoon mu dem àjjana mu naan ay jox nañ ko waa bani Israël àjjana waa bani Israël boobu ñu jox boobu waa bani Israël ñu ngi woon ci Ibrahim alayhi salaatu wasalaam àjjana googu bu doon jox nañ ko Ibrahim Ibrahim kay dana dugal baayam du toog fii naan yow yàlla jéggala sama baay ba yàlla naan ko Ibrahim sa baay jéggalu ma ko bu jéggalul yéefar ma nga safara léegi ñu jox ko àjjanay waa bani Israël bu ñu ko joxoon Ibrahim ca jamono jooj Ibrahim kon du toog fii naan yàlla jéggala sama baay kon dana jël ci àjjana yooyu mu am mu dugal ci baayam bu doon moo ko moom bu doon Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom àjjana ay feni kase la jàngi leen seen diine ngeen jàng alxuraan xam ne li nekk ci alxuraan moo dëgg lii moo tax alquran dafay déranger senegal lii kasee tax seen duul yi moo tax moom ngeen bañ mu leer moo tax ku ne qaala laahu qaala rasul ngeen ne day dingat sëñ Tuubaa dingatuma sëñ Tuubaa Masamba mii laay dingat te sàmba mii déggal ma naan Masamba mii Yuusu Jóob mi li mu wax nii même mag ñi mag bu ko wax waxu dëgg ndax mag munoo fi toog di ngand ngandalu ba aj sa bopp ci kaw yenn saal dañ lay tulli wàcce la ci suuf ne la mag mi da ngay fen li mooy di am moo tax bu ngeen toppee sëñ yi ngeen sànku barke yàlla day déglu leen ko. àjjana sëñ Tuubaa fàggul nañu ko te ñun ñii suñu àjjana leer nañu tafaatooguñ ko. ku toog ni naan sama àjjana leer na Aboubacar Siddiq ma gën sa ndey Omar ma gën sa ndey naan bu bu bu benn tànkam duggoon àjjana moom day jàpp ni benn tànkam dong mu dugg du wóolu ndax beneen tànk ba dana dana egg. fii leen toll nga naan àjjana yow toog fii sol sa yére yi ngand takk sa maxtume takk sa bàyyilaat ñëw naan àjjana Serigne Touba fàggul na la ko ba am ngeen àjjana mbokk yi lii pas-pas bu bon la. ay fen la ku ko gëm sànq sëriñ si génn leen ngeen wax nit ñi dëgg ne sëñ Bamba amul àjjana gii génn digle maama saa amu ko jàngal leen nit ñi alxuraan sunna xaala xaarasu loolooy diine diine gi moomoo leen yàlla nee na yett bi nee ku bëgg ñu jaamu la da bind sa asamaan ak suuf bindoo leen asamaan bindoo leen suuf yàlla moo bind Tiwaawan yàlla moo bind Touba yàlla moo bind Medina Baay yàlla moo bind àdduna bi kër yooyu ñu sàkku ñu ëndul dina tawal du ñu naaj Bamba tawaluñu Maodo tawaluñu kenn taw fi fii yàlla mooy taw te mooy buur mooy azza kooku lan doonte jaam ay jaam ya keneen ku dul kooku sëñ Bamba jaam la Alaaji Maalik jaam la limaamu jaam la bàyyi leen seen fenn yéen sëriñ si yéen ña dàqa duul Sénégal ba mu daj barke alxuraanu karim boole ko ànd ki duul kan ñu dëggal seeni duul ñi dun nit baaxuñu àjjana sëñ Tuubaa fag day fenn ñëpp suñu àjjana leer nañu tafaatooguñ ndax koo xamante ne ki nga yaakaar dafa wax de li xayrin taxaa bi mun taxaa kullu si wa yan xaw nax wi sayyidun wa zu tuqaa boo amee nattable ci sa àjjana bis xamoo sëñ Tuubaa koo xam ne ki nga yaakaar wax na ne kullu muridin bi yàlla yasadu wa innahu min azamu bahadu ngay wëlbati ko di jaaxle ndax di nga dugg àjjana am déet boobu xamoo sëñ Tuubaa koo xam ne yaa ngi yaakaar sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo wax ne yonent bi jox na ko àjjana yi bani Israël yépp bani Israël kenn xamul lu ñu toll te duñ dugg àjjana te suñu borom bi mu bindé mbindeef yépp ku ci né da la bindal kër jox la ko ci aljana bind kër ci sawara itam dal di né bu fekkente ne aljana nga jëm sa kër aljana yaa koy dëggee bu fekké sawara nga jëm sa kër aljana ji dalay rëcc mbolam kër aljana yi bani israël rasulullah sallallahu alayhi wasallam jox na ko àjji addiye ya sëñ Tuubaa ma comme njëkk ba fess sol sa ki wax sa wax ñu jox le micro nit ñu bari wóor wóor la mune ne aljana yoo xam ni comme nit ki dañ lay bindal sa kër àjjana sa kër safara léegi comme ñi nga am am nañ kër àjjana waa bani Israël loolu yent bi moom day fenn li mu wax si yent bi salaa salaam moom dèjà pour yent bi salaa salaam lu wér ni yent bi salaa salaam àjjanay doomu aadama amul benn àjjana bu jox yent ko yent salaa am mi ngi sa loxo yaaka moom te bu doon moo moom àjjana ja moom bàyyi taxam moom dafa bëgg dugg àjjana moom yent salaa dafa bëggoon mu dugg àjjana mu ngi ko naan bàyyi waxal laa ilaaha illallaah ngir nga mucc bàyyi tuubal bàyyi duggal ci diine bàyyam ne ko dafa bëgg a dee ci diine Euh, kii ci yoonu kii après bàyyi dee dem safara mu ñaanal ko ba sonn ba sonn moom salaasam yàlla ne ko kii moom safara rek ne ko nag mën naa ko sax dimbali ci lenn yàlla borom santal ne ko koy solal ñaari dàll ci safara moom moo fay sol dàll ba pare yuur ngay baax sallallahu alayhi lii la bëggal kii ñu ne àjjana bani israel googu yàlla def ko teg ci loxo yéen saasam kon moo ko moom mooy àjjana bi nga xam ne waa bani israel kii li mu leen wax du dëgg àjjana googu du feq du fenn fu mu ko kii moom moo ko wax ngeen wax ko wala ngeen laaj ko wax ji fu mu jëlee ndax lii mooy diine ku ci nekk boo ñëwee toog ne xalaat see xalaat indi ci yenn saasam lii lii mooy ay fen la ay sos ci diine gi ndax bu ñëwee mu wax ni ci àjjana bani Israël laaj ko ci ban téere la ko jëlee ci bañ kutub wax jii ay waxam la yoon waxam moo tax ñu naan sëñ bi géej la sëñ bi géej la mooy lan ku yor say duul ñëwal teg ko ci maanaam géej la léegi boo ko ci sofee rek bokk na ci ndax lim bind ak lim dund dundam moo yaatu ay fenni kase ay naxaate moy bu kenn wedd kenn moy ku nekk ñëwal business moy géej la léegi limu wax ni léegi laaj leen ko fum fum fum ko jele ndax lu yàlla wax la ci alquran ba wala ci sunnata muhammad sallalahu alayhi wasallam wala ci wax yo xamni sa jele nako sax ci kenen fo xamni manam delu way la ci diine mais yow bam ni neex ni aljana bani Israël te aljana bani Israël gam yi wax moom loolu du la am moom. dem len màkkatal mukarram ngeen laaj ndax yéen saatam ben hadith wala benn téere kutub. ci borom xam-xami lislaam yépp ñu ne ajjanay bani israil yàlla jël na ko jox ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko am indi ko nga teg ko fii moo tax seen du lii loo xam ne Sénégal kese la am ci benn yoon benn kii benn kii pa bi Youssou Diop moo génne xalaat xalaatam ñëw indi teg ko ci diina ji sa waay bu doon lu mu moom wala leneen mu wax dinañ ko respecté ñu woddu wax ji ne ah mag mii de kii def mais diina ji liñ ciy teg ni ay duul la ay fen ay kazaab ay riiraat ka ci diine ah. léegi ñu teg ko ci yenn saa yi jox la waxee ñu eggale ñun déglu tàppale rek. àjjana sëñ Tuubaa fàggul nañu ko te ndax kii àjjanaam leer na ko tafaatoogul li am saxaaba yi ko dèjà moom moo ëpp daraja saxaaba yi moom Youssou Diop mi ak waa kër sëñ Tuubaa lii da leen nax te sëñ Tuubaa boppam la doon jaamu yàlla moom li muy def moom la concerné lii ay naxaate la ay naxee bàyyi la pour nax lan pour nit ami bi. pour lan ci lan nga amee àjjana lan nga liggéey yàlla ba am àjjana day fen du dëgg mbokk yi ki nga yaakaar dafa wax ne li xayrim taxaa bi mu taxaa kulli si saxaa mu yàqu bi ñu naw yi sayi dun wasul tuxaa bu amee nattable ci sa àjjana bés pénc xamoo sëñ tubaa koo xam ne ki nga yaakaar wax na ne kullu muridin bi yàlla si yasaadu wa innahu min azaamu baadu ngay wëlbatiku di jaaxle ndax di nga dugg àjjana am déet boobu xamoo sëñ tubaa waaw koo xam ne tey yaa ngi kii jaaxle pour dugg àjjana affaire yooyu ci sëñ Tuubaa xamoo sëñ Tuubaa subhanallah sëñ Tuubaa dafa moom àjjana ga doo leen jàngal nit ñi dëgg lii si yéen ki sànq ay nit de nit ñi yaakaar man kenn laa woon si ñooñu kenn laa woon ci ñu billaahi wallaahi li ma yaakaaroon ci àjjana ci sëñ Tuubaa laa ko yaakaaroon barki alxuraanu karim barki alxuraanu karim naan la téere bii man <laughs> daa yu la bëri tappale man ay affaire yu ma gëm yo xam dama ko pratique yaaka naan yeen yéen bokk taal yéen ay maraqib ñu naan ay bokay koy jàng da ngay nekk walu ta yoy dama bëggoon nekk walu par guddi la doon jóg wallaahi comme nit di jógee def xiyaamu lay di jàng maraqib tous ben walu yu nekkuma ben walu ben ben benn ab walu yu goo ni lam nga day deñ ndax bokkaale yalla mom dépasser wuy ut jël sëñ touba jappé ko yalla wala jël doomu arama di ko jaamu ne ki loolu mooy li gëna yes moy li gëna bon mooy li gën a bañ sax wuyu yàlla bi la sàkk bi la moom amal nga utal ko morom yàlla bi la sàkk moom la nga ñàkk kersa naan jaamu sëriñ diw yow ma xiyaam soxlaalu ma kenn ku dul sëriñ bàyyi leen bokkaale bàyyi seen fen yi seen seen seen seen seen yoon yi màbb rek rek fen rek. àjjana sëñ ko te ñun ndax koo xamante ne ki nga yaakaar dafa wax de li xayrin taxaa di mun taxaa kullu si saxaa wa yanxaw bihi nahwi sayyidun wa zu tuqaa bu amee natable ci sa àjjana bis pénc xamoo sëñ Tuubaa koo xam ne ki nga yaakaar wax na ne kullu muridin bi yàlla yasadu wa innahu min azamu baadu ngay wëlbatiku di jaaxle ndax di nga dugg àjjana am déet boobu xamoo sëñ Tuubaa koo xam ne yaa ngi yaakaar sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo wax ne yonent bi jox na ko àjjana yi bani Israël yépp bani Israël kenn xamul lu ñu toll te duñ dugg àjjana suñu borom bi mu bindee mbindeef yépp ku ci ne dalaa bindal kër jox na ko ci àjjana bind kër ci sawara itam daal di ne bu fekkee den àjjana nga jëm sa këru àjjana yaa koy dëkkee bu fekkee sawara nga jëm sa këru àjjana ji da lay rëcc mboolem këru àjjana yi bani israel rasulullah sallallahu alayhi wasallam jox na ko àjji addiyee sëñ Tuubaa ba mu ko ko joxee sëñ Tuubaa lan na ko tontu da ko ne da ko ne joxaat naa la ko addiyee ngir yàlla yonent bi ne ko sëñ Ablaye da ko nettali ci rajo Sénégal yépp di ko dégg yonent bi ne ko man de yii dafay lu jóge woon ci man te man dara du jóge ci man di dellu si man joxaat naa la ko àttee sëñ Tuubaa ne ko kon nag denc ko ba bis bi àggee ci xam ne di naa ko sama kër sama yóbbu. waaw léegi mooy léegi comme daf fay dogal comme même àjjana googu ñu ko may sax moom mu jaam yàlla bu mën a am saa sa mu jóge gën ci nit dama ni leen àjjana xéwal yi fa nekk jox naa leen ko sànq exemple ki fa gën a tuuti la fukki àdduna fukki àdduna foo mën a jaar ba liggéey lu tolloo fukki àdduna ko fa gën a tuuti laa ka fa gën a néewle xool leen ka am àjjana fii daw si ak xéewal ya nekk ci àjjana yëpp ñu naan leen kii liggéey na àjjana rabbil kaaba ay ay naxee mbaay la sama gars kon lii kon dafa nekk ay caaxaan ak i tappale ba pare yemut ci àjjanay ñooñee ñu ko jox de yemut ci àjjana mais nee na sëñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa nee soxlawul àjjana goo xam ne taalibe mi utuñu ko woon pour aar taalibe mi pour ñeneen moo tax ñu ut ko léegi yàlla sax ngeen di jaawe loolu di ko juumloo yàlla bind àjjana ne àjjana gi pour kii la bi pour kii léegi ñu ne léegi àjjana googee léegi rus na pour ay taalibeem di am sax taali àjjana gi nga xam ne mooy àjjana bi nga xam ne moom mooy bi nga xam ne euh, maanaam fàgguwuñ ko ñoom pour ñoom xool leen yi la xeetu yombal àjjana ay jébbalu ci sëñ Tuubaa nga am àjjana jébbalu ci ki nga lii moo tax nit ñi di sàcc limo mo indi ay agresseur nit ki du am taqwa du am tawhid du ragal yalla ndax day yaakaane bu deewee rek Serigne Touba mo koy fekk ci bammel képp ku fi taxaw ne len Serigne Bamba da len di fekk ci bammel wallahi day dul yow man Serigne Touba talu len bopam la tal du samay wax nak waxi al waxi waxi borom bi subhanahu wa taala la gëm leen alxuraan wala ngeen gëm uh, kii kalaasu yusuf Jóob gi wax ji nak fi koy tëjee nag mooy ko continuer. seen tappale yi nekk ci dëkk bii seen fo yi nekk ci dëkk bii képp koo xam ne nee na yàlla ne yonent sallallahu alayhi wasallam ne ngeen am foo leen ko féetale nekk yi dafa lenn moom boole ma féetale moom nangu naa man Medoune Diop Watax muy contre mag ni nangu naa kii dafa bokk ci ñuy déngan mag ñi nangu naa kii dafa bokk ki ki ki bañ sunu mag ñi mooy seen mag tappalekat yi di diggaate ay aljana gom deug deug agressé nan da ngay may aljana nan da ngay duggal nit aljana di lek xaalis yi ci adiya di baylon nit man munuma and ak ay tok tay tay bëgguma leen man dama leen contre dama leen digal seen magi tok fi di wote wo Serigne Bamba yalla la mo bind yalla ay feli kase du deug mag ñoon dama leen contre dama leen digal ñi fi tok di baylo ay nit soxor sadit war leen wax ñu dem liggéey seen bayal seen nday jappalé seeni baay jappale néew di doole yeen jël xaalis bi and ak politiciens yeeg ñu melni seen président yi ku sàcc alalu réew mi ay ki jox leen ngeen lekk alalu riba ñoñu bëgguma leen dere fi julli tere fi wóor bëgguma leen dama leen di dinga dama leen di contact ndax liggéey ni jigeel yépp ay tappale kase tàqale julli ci ay koor koori bëgguma leen ndax naxaate kase ngeen fi nekk di dig ay yéen ak agresseur ki yéen yam da ngeen agresser nit ñi seen pass pass di leen dig ay àjjana ak yoy man damay contre ñoñu mais à part nag bu ma kenn jël di ma taqale ci benn kuréel kenn taxumaa wax yéen a dàq fen ci comme kii dañ ko fay dañ koy waxloo ay temps jingéem fi nit ay taalkatu bomb lu nekk dóore yéen ko fiy def lu rawitaale bomb da ngeen koy def wallahi lépp lu bon diine gu mitti nag mooy amut weddi amut laa ilaha illallah muhammad rasulullah dama ni leen ci Sénégal fii dan naan laa ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa huwa xayyun laa yamut bi yadil xayr wa huwa laa kulli shay xayrin walaw karihal kaafiruun walaw karihal mushrikuun kennal yàlla borom bi subhaana taala lii dëgg mooy dëgg yàlla gi borom subhaana taala diine gii loo fi jëlee qaala allahu qaala rasul diine lislaam digal la ak tere li la yàlla digal nga def li la yàlla tere nga ba waaye nekkul lu la sëñ Tuubaa digal nga def loola lu mu la tere nga bàyyi lu la Maodo digal nga def loola kii teg ay duuli kase la yéen a ko fi teg yéen kaat ay tappalekat foofkat nit yu bon yées naxaatekat ñoo xam ne yéen màbb rek seen seen kii yi mooy loolu wallaahi mooy yéen ay teeran abaabi la ngeen ko seqal ndax kat ay nitu yàlla yu bari toog di woote ci diine yàlla ngeen njabar leen liggéey ngeen fi nit fay ngeen sëriñ fii ñaari million ne pour mu liggéey nit ci kuy jàngale taw tawhid toj ngeen fi kër toj ngeen fi ay jàkk toj ngeen fi nekk yàlla yi ngeen amal affaire ay dajaar yu taxaw ngeen rek yàlla nag nattu leen nag indi ay taaral abaabila yoo xam ne ñoom dañoo ñëw rek kenn xamul fu mu jóge da ngeen di jékki-jékki rek gis ak seen <laughs> xeer yi kawe yi di ñëw far ñu fenn ci yàlla lan far lislaam moo tax ñuy wax yal nañu yàlla wan dëgg ba ñu xam ko mu teg ñu ci saxal ñu ci rey ñu ci dekkal ñu ci mën ñu caaxaan ak ci tappale ak ci naxe ba ñu xam ko ñu gas pax ba mu xóot ñu suul ko xàqandi ko ci nappaaje ko diggite ko ba pare ne leen merde wax ji ku metti nga mat sa bakan yal nañu yalla dolel ci kaw fenkat yi yi sosal yalla di sosal mama sala di nax askan di lek seen xaalis ci luddul deug di leen dik ay aljana yu deug di leen dik njëriñ jariñu bammel seen ñii ku leen topp duulkat yi wallahi di gen torox ñi dàq fen duma ci denc seen dekk bi ku xam deug waa rabbil kaaba daf leen yërëm du leen ànd di leen xeexal ci politique lépp lu baax na def leen ko mais waa rabbil kaaba fekk yéen ngi bon seen bon gi ci yàlla di fenal yàlla lu nekk nga dégg fa puus Muhammad sallallahu alayhi di dóoraate ci diine lu dul dëgg kër diine yi ku ci jaay dorog dugal ci dëkk maam sàngam dorog mu rëcc ah corruption bi sëri ku jàpp doomu jàmbur wala sëñ ba def leen sëñ ba bu wootee ñu ba ko seen kaat gàlle yi fekk yéen a ngi leen te fi leen teg seen kat yalla yi fek yéen tek teg si seen seen yàlla bari dara du le ndax yalla yi ño bari déggoowuñ seen yalla yi ñi ngeen def yalla ño bari yalla azza wa jalla nak bi nga xamni mom moy deug deug yalla mom kuko boole ak leen daf lay setan yalla mo leen setan bàyyi leen nag seen kat yi di yalla yalla ku ci daqa dul sa morom nga rek kii deug deug deug man ci senegal ñi ma ñi gëna a nekk ñi gëna a ci askan wi mooy si ñass ak ki moy sante yi gën gën nawlo nan sante séri ñoo ñi gën yes ci Sénégal ndax ñoo fi diggé aljana yoon du bénn dëgg day fenn di fi diggé ay ba mel ñoo fi puus yalla ñoo fi tok di def seen mam di leen ay malaat ñoo tok di khas Muhammad sallallahu alayhi Wasallam, fu ko ci dem kër gi ko ci dem rek ci njaboot gi rek ba ba xool rek di nga dégg nit wax ci waxi doomi kuttu yo xamni subhanallah da nga nan ki mom est-ce que julit la ma tig taj yu bon a bon yoo xam ne subhanallah kenn ku ne ci saw tur ak saw sant moom man la Mouhamadul Mourtada Mbacké moom Serigne Sidi moom Cheikh Abdoulaye léegi da ngeen di déglu wax ji ak sama live bi comme te live yi ndeysaan mooy loolu di leen wan ni doo leen ay nit di leen wan ne ñu bon ñu yées yàlla toll leen fenn lislaam toll leen fenn lu waaye wax yàlla baax na déglu leen xaj bu dee bi doomu sëñ Sidi Mbàkke bi wax ci bon ji mu wax nekk njabootu sëñ Tuubaa la bokk naan waa kër sëñ Tuubaa la ak sëtu sëñ Tuubaa leen waxi duulam yi bon yi salte yi naan wanagu yàlla te te te bàyyam sëñ Mbàkke moo am wanag yéen yooyu ñu ci baax bu ngeen may balaa ngeen wër kenn nag naan ay wax ji daa tàng yooyu dem leen kii waxam ji daa tàng dem leen ngeen noq doomu sëñ Sidi bi ma may leen bii tëj tëj laay bi incha allah. yàlla na yàlla teg زوتور أساسا من لا محمد المرتضى مكة ممسرين سيدي ممسي عبد الأحد على لي بربطو باتي دي بجامم نوغي بنوغي ديل سيوات بغا يكتي وات كادو يو خامني euh لو دغول سي نون تاي لو نيور لا تاي موي كادو يو خامني كادو يو دغول سي نون دي كادو يو خامني موي لي دغ سي سونو خول نوكاي واخ موي سي موي سي احمد الخادم na nanu xam ne képp koo xam ne def nga ko yàlla na nga xam ne xeeb nga borom tubaa mel nga ni fekk nga magum téeméeraat nga def ko gone ak fukki ñaar képp koo xam ne def nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeeb nga borom tubaa borom tubaa du moroomam yàlla yàlla yàlla mii li muy rii rii borom tubaa du moroomam du moroomam borom tubaa ko dimbali borom tubaa ko sàkk borom tubaa ko lu mu am na ko sante borom tubaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu am ak lu ma xam ak ak ak nu mel na ko sant sëñ tubaa sëñ tubaa ko dimbali waaw kon keneen kon keneen kon keneen waxaale wuñ ko képp koo xam nag xem nga borom Touba am na ñoo xam ne sax ab sëriñ lañ jàppe sëriñ Touba jàppe ko sëriñ am na ñoo xam ne ko ko jàppe waaye képp koo xam ne daal jàppe nga borom wala nga jàppe ko am na ñoo xam ne sax am na ñoo xam ne sax ab wali ah, lañ ko def waaye yooyu yëpp ku ko def borom Touba daal li wér na nga xam ne ëpp na yàlla ëpp yonente na la yooyu xam ne borom Touba ëpp na yooyu te kenn na la ci dul te te ñooñu ñooñi ma ñooñi ma tudd kenn la ci si ahmadul xadim du du sa morom léegi nag ndax sëñ Tuubaa daa wax ne sajjada li jalaalu xablal xalqi aadama nuuril Mustafa sil xalq ba ma yàlla su jootal man si ahmadul xadim booba bind booba yàlla su jootal ma njëkk ñuy bind min mindi te booba leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabbiwul ci aadama dellu waxaat ni yàlla min nan kun la ko def kun ba muy kun kun mi ngi sama tenk lii kon ko ko kon ku nit nit ki lu waay gàtt gàtt xam-xam xam nga ni nit li nekk ci tenk xam sama lugo dellu waxaat ni yéen ñi ci sama wanag wii ak ña ca wanagu yàlla ñooyam képp waaye man maa wute yàlla di nuyu. wana wana ko yàlla dégg ngeen kii li mu wax nii léegi léegi léegi waxi bon yoo xamante si waxi kufru suufeel yàlla lii daal lañ amel kii yow Ibrahima Gueye nee na ma ana sa jabar xanaa dafa xëy gis nga lii laa leen di wax sama gaay billaahi doo leen nit ba ci sax léeg-léeg nga gis ngay wax kenn naan la kii dafa ragal jabar ji ragal jabar li ngeen ko tuddee mooy respecté jabar respecté wo len nit du jigen du len yeen li ngeen wara defar sax seen wallahi seen seen serigne ci manam ni len agressé ndax damay tok xalat ndax man luma dund la xam nga tay nit li tax lu koy mën man te bu ngeen ma gisé tamit xam ngeen kat la ñoo kepp otage Sénégal mo mais man bu ma kepp otage mom bayloma bu seigne touba bi la galé seigne touba bi la motax ci lay wax murit la bu xajj loolu tax foofu laa mën a wax moo tax yeneen kër yi mënuma ci sori wal wallaahi yenn waxi ci réseaux sociaux Facebook ak ak WhatsApp moo tax ma xam ne tijaan yi sax ndeke doon nañu wax genre waxi billaahi wallaahi te après tamit <laughs> allah akbar Facebook cey cey WhatsApp jamono ji képp ku réer yaa bëgg a réer ku bëgg a sànku yaa bëgg a sànku barki alxuraan mais li ma doon dégg nii tey su ma ko doon dégg démb xàcc naa bu yàgg ay yoonu yoon man ay histoire yu ma doon dégg avant réseaux sociaux yi ñu koy wax ci sëñ Touba ne bis bii tey sëñ bi dafa pes gaynde ga bisub àllarba ci ngoon ci atum pes ma nga damaa demaat léegi ci réseaux sociaux yi ba mu xewee laay diggaat léeg-léeg Tijaan yi wax ma benn histoire ci ma maam Maodo wala ñoo wax benn histoire ci Baye Niass teg teg comme li sëñ Touba defoon maanaam ñii ku ñu yàpp fekk na sama xàcc ba pare fekk na ma comprendre mais wallaahi ba ci wax yi dañ koy àbbante léeg-léeg nga dégg benn wax teg teg benn jëf teg teg jëf ji kii moomale ko Sëñ Tuubaa kii moomale ko Maodo ndax kon da leen di wax ni ko seen yii ay léeboon lippoon amoon na fi ndaanaan la benn jëf comme nii tey maa ngi nii toog fii di live heure bi heure sàngam ci page Otage bi daal léegi nga ñëw sama live bi tey nga ñëw jox ko Oustaz Alpha ne moo doon live kan ngeen yàpp kan ngeen yàpp nan la koy nit mën a comprender ne waa kan moo doon live affaire histoire sëñ Tuubaa ak allah ñamaal dee leen gëstu wallahi léeg-léeg ñu jël même teg teg même histoire kii abal ko mbay si suba nga dégg kii abal ko sëñ Fallou suba nga dégg kii abal ko sëñ Abdoulaat kii abal ko ku nekk ku nu yàpp ay caaxaan laay foola sama gars yi beneen bi ma ñëwaat ci loo xam ni wallahi yéen chaque jour lii leen ëppal solo xool leen ndey ak baay li mu mel yàlla tagg ko yàlla gërëm ko nga mën a ba sa ndey ba sa baay dafa metti déggaloo sa ndey déggaloo sa baay nga dem ci pàppay jàmbur nga déggal ko ci ndeyu jàmbur loo bay jot boo demee ci moom yàlla la bul yuuxu sa ndey nga dem yuuxu sa ndey boo demee ci sëñ ba wax ak moom ndànk léegi ba ci kii naan ma da nga ragal sa jabar wala yéen respecté jabar ci yéen wax ay ragal sa jabar Sénégal ñun loolu la gëm ñu doon esprit bu suufe yéen seen jabar yi liñ leen defal liggéey di defal seen sëriñ yi boo leen gisee rek simmi leen kàpp ay sëñ bi na nga def waaye mbàkkee lii lii dem kii loolu ngeen defal ko seen jabar yi moo leen ëppal solo ndax seen jabar yi ñoo leen di toggal dañ leen amal njariñ di leen toggal ñoo di ngeen leen war a respecté di leen ñaanal léeg sax nga dégg ñaan sëñ bi yàlla na fi yàgg tëwér yàggam fi tëwér sunu njariñ la du dëgg wu yàgg ak bi ak wér sa sa jabar nga war a ñaanal même ñaan yi ngeen ñaan seen sëriñ naan sëñ bi yàlla na fi yàgg te wér ndax yàggam fi te wér suñu njaay sëñ bi yàggam fi wér sa benn njariñ dalay bayloo dalay nax gi la dig àjjana dëgg loolu say wax la yow mais sa jabar nga war a ñaanal mu yàgg fi te wér ndax yàggam fi sa njariñ moo lay fóotal moo lay baleel moo lay toppatoo ngay bànneexu ci moom yàlla suñu borom ne la kii kat ma macha allah mu doon ab xéewal ci yow kon da ngeen war a respecté ñooñ mais man comme yeen ni ngeen respecter seen serigne ci jappé fi seen serigne ci ki naan ma ay nga ragal sa jabar lo respecté nga ko man sama jabar man moma gëna gën ay sama serigne amul kenn ku nekk ci kaw suuf ko xamni sama yaay ak sama sama sama waa sama sama ki sama sama sama ki ñima yalla fonklo ño xamni xam ne ñooñu moom mbay sa tank mom moom ñooñu moom bu ne bag bag bu ne bon nga bon nga ñooñu rek ba soxna ci ngay défar ba mu baax di tabax ba mu kawe li ngeen tuddé ragal jabar nak seen idée yu bon yi nga xam ne ñun dañu ko jàngal tamit dañu ko jàngal ci lan ci comme ni ñu yoree jigéen yooyu baaxul moo tax nañu góorlu ñu ragal yàlla ci soxna yi ñu respecté soxna yi ñu respecté suñuy jabar ragal sa jabar li ngeen ko tuddee loolu dara nekku ci dafa war ragal sa jabar daal mooy respecté sa jabar sa jabar léeg-léeg mu ñëw sa fekk la ngay kii mu teral comme man yàlla xam na ni dëgër bopp sama dolli ko ci dëgër bopp rek may jàpp wallahi ba ci laay fi may def nii sama jabar dama koy tere laay fi bàyyi ko lii di damay tiit damay làqatu sax ma dolli lu ko ci léeg-léeg su may laaj damay mais li muy wax yëpp pour sama jàmm ak sama kii bëggal ma kii ndax tiit comme seen dëmm yi mel ni yéen nekk fii saa waaye di la bëgg a lekk ay saaga ndey ay xaste ay dal lay lekk ay kii affaire yooyu mais sa jàmm rek la lay bëggal mais danga leen di comprendre ragal leen seen jabar yi mooy lan mooy respecter seen jabar yàlla moo leen dénk seen soxna yi ngeen war a ragal yàlla si ñoom ngeen fonk leen ngeen respecté leen li ngeen di ñaanal seen sëriñ mu yàgg fi te ngeen ne seen jabar yi lay toggal ngeen lekk di naan ngeen ne jabar yàlla fi yàgg ndax yàgg fi te ñoom seen njariñ la mais yàgg njariñ seen bii du seen njariñ yàlla nañ dee sëriñ si nekk fi yépp di naxaate di yàlla yàlla lu yàlla na yàlla mabb seen caaxaan اللهم منزل الكتاب سريع حسابي اهزم احزاب اللهم اهزمه وزلزلهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك sama gaay ngeen بارتاج bu بارتاج partage sot la bokk wax ji ku metti nga maat sa bagan